suñu mbokku séeréer yi nekk Paris comme dama def ren album bu tudd ci cosaan séeréer donc ensuite euh, euh, dentité la ko tuddee mais dafa am morceau bu nekk cosaan séeréer te yëngal jamono ñoom tam ñu am association bu tudd association pour cosaan séeréer mu mu boole ak beneen association bu tudd Le Lieu ñoom ñu woowoon ma foofu benn journée culturelle le 3 mai le 4 et le 5. ma dem tëggal leen foofu ñu jox ma euh, diplôme boobu sérérité après euh, en même temps ñu def ma ambassadeur de la culture séeréer loolu tam doon lu rëy ci man ah, bi ko sama mbokk yi déggee sama ménagère bi Omar ak sama mbokk fans yi nekk fii ñu mobilisé wu nag jële ak ñoom Kormaak Fay saltigi Kormaak Fay ñu mobilisé wu gàttandu jima aéroport ak waa RTS 1 bi ñu ñëwee vraiment ñu def ko fet bu reuy dal eh, yi guddi woon na trop parce que yaakar mo ne vraiment dinañ nangu baye sen nelew parce que ay désert de matin laa yegg té fek te fekk leen aéroport ñu tok di ma xaar bi ma ñëwee ñu def vraiment ay car lañu def pour gàttandu ci mon sen ñu ñëw tam top ma ba sama kër papa fa la usine bentali ba fi nga ma dëkk ni ñu ñëw kat ma fi fi lañ nek presque ba 4 heures de matin di waxtaan ak gaañi donc yéen tam boo leen ñëwé ni comme seet si ma si loolu dama ciy kontaan di leen gën di leen sant.